xamante ni askan wi war nañ ko ci daal di xam ñu xam ko ci honorable ban gis-gis nga am ci tweet bi nga xamante ni Pape Alé def na ko jàpp na ni lenteur am na ci lu jëm ci wàllum euh, rapport yi waaw xam nga rapport yi de moom man moom li ma li ma waxoon rek mooy état moom keroog son excellence dafa am lu mu junj mhm. ne man teguma benn conc sama conc bi teguma ko ci benn këyit hmm. benn ñaar du ma wax benn yoon justice ne leen lii ak li du ma dicté du ma dicté kenn dara ku ci ne am nga loo war a def dëgg loolu dëgg mm-hmm. le procureur est le maître des poursuites président de la république daal prérogative am mooy te loolu sax waruñ ko ko may mooy toog bay laaj ay rapport ça doit être automatique Birahim Seck forum civil du temps de Macky at bu ne mu taxaw ne la rapport des cours des comptes wala OFNAC de mille dix huit wala de mille dix sept wala nangam ba léegi tegul ci taabalu Macky Sall. te loolu ça doit être automatique ñu pare rek ñëw rek indi présenté RTS ngoon ñu wane sénégalais yëpp xam ne le rapport de nangam ñëw na président Diomaye bi mu ñëwee deux mille dix huit deux mille dix neuf deux mille vingt deux mille ba deux mille vingt trois yëpp mu laajte ko. nag bi bi mujjee mujj na ñëw tege nee na sénégalais yëpp lii yoon la nekk na léegi nag ca taabalu comme war a dem ma nga fa man nag duma fi nekk di protéger kenn duma fi ne di jël ay conc di teg naan noo diw mi diw mi parce que diw mi fii la bokk du ma protéger kenn ñu nit noonu la bu ñu demee ba suñu juróomi at jeex rapport yi at bu ne day bëgg di ñëw bu demee bu juróomi at yëpp jeex ñu ne sénégalais lii la liggéey. et puis loolu ça doit être automatique. Mm-hmm. jaara automatique warul loolu warul warul nekk débat warul nekk débat léegi nag président de la république daal Diomaye man li mu wax man daal loolu laa d'accord nekk fii dugg fii ñu ne xoolal moom it génn ne ca exécutif bu dugg na ca judiciaire ba li mu doon tere Macky Sall gis nga mooy instrumentaliser la justice muy justice bi na def liggéey. ils ont les dossiers lu ñuy xaar nañ def liggéey bi mbir mi. mais mais loolu mooy laaj bi lan moo waral yeexaay bi ci ci jëm ci wàllum yoon. rapport yoo xamante teg na ci yëpp tege na ci kaw table voilà boobu ak léegi kenn déggu lu ci jëm lan moo waral lan mooy expliquer lenteur bi ci am. waaw léegi est-ce que non attends xam nga état nag jaar. Mhm. Euh, euh, état état nekkul noonu. man Ahmed Aïdara damay toog fi ma toog gannaaw mais lii nii dafa yéex vous comprenez mais état moom la mu xam parce que man dama mënul jàpp benn yoon mënuma ko nangu ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye wala Ousmane Sonko dañoo gis lu defuwul ñu ne gars yi taxaw bu leen dem te ñoom rek xëj na ñoom ñoo waroon a am kàttan googu même bu nekkul seen prérogative ñoom Macky Sall gars yi ko doon def fii nii ak régime yi jàll yëpp di di di di dicter seeni loi di instrumentaliser la justice ñii duñ ñooñu pour man ah pour man day pour man day bagages yi moo desee pare xam nga rapport aussi nekkul accusation de rapport du enquête de loolu aussi sénégalais yi il faut ñu xam ko gars yi bu ñu ra bu ñu defee seen rapport ba pare ba ñëw indil ko président de la république mais procureur de la république bu bu bu ko bu ko jotee day ubbi information mais nekkul ne dañoo bind ci rapport ni lii ak lii ak lii rek ñu ne gars yi tëj leen nii non rapport ak enquête bokkul de ñaar la inspecteurs yi peut-être ñoom def nañ seeni enquête interne ci biir ba gis ay ay ay fay yu defuwul ñu bind yëpp ci rapport indi ñëw teg procureur bi nag liggéey mooy gën a xóot am na ñoo xam ne binduñ leen foofu. mais heure audition yi bu jotee dañ leen di wow ñu leen sawaay non man gañoo ma woon marché bi de day rapport bi sama tur sax nekk ñu ne waa gañe woo ko kay diw moo ko gañe mais yow li am na fi benn semaine boo xam ni yow liggéeyee nga fi ñun kay li ñu lay laaj lu ndaw rek la yéen ñaata la leen gaayan bi doon fay ay manœuvre sax mën nañ leen a convoqué ci enquête bi te mosuñoo nekk ci ci biir rab ay manœuvre yoo yoo yoo jël mën nga déclarer ne main d'œuvre bi ku nekk maa ngi ko doon fay journée vingt cinq mille francs mais enquêteurs yi dinañ fexe ba xam bari yooyu noonu nga doon jël ci main d'œuvre bi diw ak diw ak diw il paraît que ci la bokk matoon nañ cent ci chantier bi procureur mën naa lijjanteeg ay àttekatam ba fexe wër Sénégal ba loqatu ci vingt cinq audition auditionné leen ñoom ñëpp te duñ fa daje ku nekk ak sa bis ba affaire bi jeex ñu bind pare jël yëpp. ñëw indil juge bi àttekat bi ñu taxaw procureur bi ñëw di la chargé nga indi say avocat confirmer effectivement ne rapport yi lii ak lii te ba pare rapport yi mën nañu ñëw sax nekk nangam de enquête bi ñëw gën koo garaaw parce que rapport yi boo xoolee procédure yi la ñuy xool xam nga li ma la bi ñu soumissionné bi ñu lancé le marché la passation des marché là est-ce que procédures yi respecté nañ ko la direction centrale des de, de la direction centrale des des DCMP marché public est-ce que mbir mi bi mu fa demee lii ak lii def ñu def rapport ni waaw d'accord ba tey mais bi ñu koy lancé yow ndekete gré à gré nga def. Mm-hmm. lu mu bon bon bon bon entreprise yi waroon na ñëw mag ñett ñeent jëm kaw lii ak lii yooyu noonu yëpp ñu bind faay yooyu noonu yëpp ñëw jox mais procureur moom bu ca duggee jaara mm-hmm. affaire bi de lu la rapport bindal rek xamal ni bu procureur ñëwee mbir ma mën na ko room nañu enquête ci junni milliards yi junni milliards yi ñu wax nii nañ ko gën a xóotal nga xool yàlla bu mu yegg mille cinq cent wala mu doublé ko ah kii rapport rek la ci institution yi lañ nekk mais procureur moom bu ñëwee ay soit transmis lay joxe yónni ay gendarme ak ay policiers ñuy convoqué ay nit defar ay procès verbaux yu dul jeex ñëw indi teg <laughs> léegi nag affaire yooyu noonu yëpp day jur temps ñee nag dañ fay def ay tojaange yu bari yoo xamante ne nii sénégalais ku la gën yàkkamti nga ne ma diw te ñoo tey tam yàkkamti ñëpp a yàkkamti <laughs> parce que tojaange yee bari scandale ci xaaral ba tey ba ñu ñëw kudd léegi nii après nañ ñëw kudd mm-hmm. directeur kudd bi li mu wax tey damaa tiit libération moo ko bind jaara damaa yéemu. loo balati. non non jaara ay nit ñu dee ba léegi ñu ngi leen di fay. <laughs> c'est mm-hmm. Amina ay nit ñu dee ñu ngi leen di fay. kudd ba léegi ñu ngi leen di fay. wa léegi ñooñu ku ku leen di encaisser. ñaari directeur yoo xam ni seeni ligne téléphone kudd lañ jógee mujj nekk ministre ba léegi kudd ma ngay fay seeni seeni ligne téléphone <laughs> vingt cinq personnes ay emploi fictif plus de vingt deux conventions avec la presse mooy suñu saaru site yi nii rek site ak ak télé yi mag yi rajo yi télé yi rajo yi mag yi xoolal convention yoo xam ni ay turu presse yoo xam ni amul. existé wul. <laughs> moo du am sax. non presse yu existé wul te ñoom seen contrat mën nga kudd tege mais xam nga lu gën a doy waar <laughs> kudd dañoo signé convention yi ak presse bi ba léegi nii. Mm-hmm. ak ñoo xam ne seen page Facebook la ñor mooy ñenn ñoo xam ne dañoo jël seeni page Facebook. di ci chanteloo nit ñi ñooñu seen page Facebook yi seen organ de presse la. ak affaire bari. xoolal signer convention ak yenn ci ay structure état page Facebook laa wax déggoo ma de ay ak ay nit ñoo xam ne faatu nañu fa yàllaaw dee nañ bu yàgg te chaque weer ñu génnee seen bàmmeel dem banque ba retirer seen xaalis dem tëddaat. astafurlah ah, noonu rek bu ko mën a da doo comprendre sax noo koy expliquer c'est grave. Ahmed dee na te moom mi ngi continuer encaisser ba tey du jëli salaire. photocopie Ahmed tey continuer jël salaire bi xam na. te une voie autorisée la personne morale du centre des œuvres universitaires de Dakar. moom sëñ bi Ndeene moo ko wax mënoon naa yónni benn nit wala mu nekkati débat benn booy Pastef génn fii di ko wax gars yi di ko oh waaye yow eh toog waay est-ce que de yow directeur bee ko wax waaw moom moo ma ko wax waaye dama toog waay bañ dégg ko mu wax mais c'est le directeur lui-même jaara moom moo wax loolu. Mm-hmm. fii la réew mi toll. moo tax nañu war a jublu ci seen.